le président Ousmane Sonko nous a parlé et il nous a parlé et il nous a parlé et comme il vous l'a dit on vous l'a dit euh, il ne se victimise pas te sous région Afrique bi yëpp gis nañu li nga xam ne moom moo xew Sénégal démb ba ci xale yi juddu démb xam nañu li xew Sénégal euh, bu usmaan Ousmane ko amoon admiration un million wala deux millions wala trois millions de Sénégalais aujourd'hui il est admiré par au moins dix millions de Sénégalais waaye comme ni mu koy waxee toujours euh, waxtu xonqal bët dafa passé te comme on l'a vu dans le pasé de notre continent gis nañ ko ci Patrick Lumumba gis ko ci Thomas Sankara gis ko ci yeneen leader yi et toujours euh, li ñu gis mooy xam ngeen toujours comme niñ koy waxee ñu ne pour nga attaquer paaku Buffalo il faut nga isole leen e gis naa démb ndeysaan ay doomu gaynde yu doon seetaan ñuy lekk seen papa seen yaay gaynde loolu moo xew démb Sénégal Sénégal li fa xew démb mooy on a fay notre mission en tant que solda on na fay notre mission ñun ñëpp ay solda on est resté à côté ñuy seetaan ñuy yóbbu suñu général démb ñoo ñu ko yóbbu buñ ko pikiiroon wala ñu posone ko wala ñu rey ko ñun qu'est-ce qui lan moo doon suñu responsabilité démb dañu toog ñun ñëpp population sénégalaise bi nga xam ne ñun ñoo di dàq yuuxu ñun ñoo daan yuuxu résistance résistance résistance ñu seetaan président Ousmane Sonko ay Samba boy ay criminel ay ay ay ay doomu xaraam ay ay mbaam ñëw jël ko nguufaan ko yóbbu ñun lan lañu ñu mën a tiitaroo ñun lan la ñu mën a taxaw ñu tuddee suñu bopp ay révolutionnaire ñu tuddee suñu bopp ay patriote on est des défaillants loolu la ñu doon démb li wone c'est de la défaillance ñun ñoo toog ay doomu sénégalais ñuy ay góoru yàlla te pour pourtant wax na ko ci ay waxtaanam ñun ñoo ko dégluwul nee na bu ñu jógee ñun sénégalais nekk na tapet boo xam ne bu ñu tojee benn grenade lacrymogène sax ñëpp daw est que seet ngeen ne président Ousmane Sonko dem bu toj nañu verre bi ci kawam he didn't even flinch maanaam bët yi sax mu pare nag muy génn mu pare mu génn këram ñuy sànni ay grenade lacrymogène est-ce que benn nit gis na président Ousmane Sonko mu leen di daw wala muy lakkatu wala muy def lii wala muy def lale non he didn't flinch muy dox doxam doxu góor yàlla di jubal yoonam droit sur son chemin démb on a failli notre mission wax ji nag dafa doy on a failli notre mission xale yëpp a ngi ci TikTok bi TikTok bi vous êtes des champions TikTokers au Sénégal des champions TikTokers yéen ngi def liggéey bu jaggi dayoo duñu leen ko wàññil waaye pourquoi pas le terrain vous êtes sur le terrain vous êtes des jeunes vous préférez mourir dans la misère vous préférez vivre dans la misère yéen lii ngeen di dund nii moom ngeen bëgg moom ngeen ñaan yàlla da ngeen ñaan yàlla ngeen toog di misère man nelaw ma j'ai pas dormi bu ma seetaanee vidéo président Ousmane Sonko ak jeunesse sénégalaise bi ni ngeen toll ak ni ngeen baree ak seen âge minimum âge c'est moins de trente ans au Sénégal ngeen toog ñëpp a ngi ci TikTok bi ñëpp a ngi sol seen waa président Ousmane Sonko ku nekk bëgg nañu ñu gis koog Sonko ku nekk bëgg naa photo woog Sonko ku ne bëgg naa appeler Sonko ku ne bëgg naa wane ne moo gën a jege Ousmane Sonko waaye ba problème bi amee kenn gisu leen furaas du benn nit bu ma xam ci ñi siiw ci ñi fama ñu gis leen ci wetu président Ousmane Sonko bi mu leen soxlaa dem wax na leen ko ñëpp koy woo waa jërëjëf waa ñu ngi lay ñaanal waa vraiment yal na yàlla yàlla yàlla béy sa tool yàlla yàlla béy sa tool Ousmane Sonko soxlawul ay ñaan fi mu toll nii xeex la soxla Amérique du ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg France du ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg même Israël bu ndaw bi réew mu ndaw bii ñu ñuy manipuler duñ ay ñaan moo tax mu yegg fi mu yegg xeex mooy dagg buumu njaam du ay ñaan ñaan baax na lool waaye ñaan dafay ànd ak jëf yal na ma yàlla may ay milliards nga toog sa kawlal dërëm du la fa fekk yal ma yàlla may gudd fan ak wér nga nekk sa kër di lekk graisse di naan koka di naan lu bon dara doo ko am yàlla yàlla béy sa tool le président Ousmane Sonko on a fay notre mission hier ñun ñu tuddee suñu bopp ay soldats ñu tuddee suñu bopp ay combattants ñu tuddee suñu bopp ay activistes on a fay notre mission ay tapet lañu ñun duñu ay nit on n'est même pas des personnes on n'est même pas li ñag yi di wax ñun bokkuñu ci góor bi yàlla di sakk góor ñun waroon nañoo bañ a sakk naka la ñuy toogee di seetaan président Ousmane Sonko saa bu grenade lacrymogène ne tëll ñëpp disparaître saa bu grenade lacrymogène tojee ñëpp disparaître j'ai eu tellement honte seetaan leen ko moom ci boppam ñuy sànni ay grenade lacrymogène mu taxaw jël ay responsabilités ñun bi grenade lacrymogène ne tël ñun ñëpp ñu daw xoolal lii lii mooy Patrice Lumumba boo leen xoolee Patrice Lumumba mu ne l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité Patrice Lumumba keroog biñ koy yeew waa dëkkam yépp ñu ngi taxaw ñu seetaan ñu yeew ko ba mu dëgër yóbbu ñun démb ñooñu mënoon nañoo yeew président Ousmane Sonko yóbbu ko à l'endroit inconnu dootuñ ko gisaat gisuñu kenn ci wetam avocat maître Ciré Clédor Ly l'homme soixante dix ans wala soixante cinq ans moo nekkoon ci wetam ñëpp daw bàyyi ko après on se dit voilà ay guerrier bu subaa voilà ku nekk dem taxaw ci wetu président Ousmane Sonko photo wu ak moom loxo voilà lëngu ko dara voilà nangam nangam mais vous nous emmerdez c'est pas ça le combat le combat se mène sur le terrain ay xale yu ndaw ngeen waroon dem tey def tànt kër di euh, buntu kër Ousmane Sonko yéen chaque jour Ousmane Sonko warul soxla garde corps Ousmane Sonko peuple sénégalais bu jeune bii ñii ma gis Ousmane Sonko warta soxla garde corps waxuma nag ku koy dem lekkal ay lekkam ndax sénégalais xam nañu leen ci loolu bu ma waxee lii rek ñëpp dem toogi ci buntu këram di xaar añ jot déedéet ku nekk na nga jënd sa añu bopp bu dee sandwich ngay añee bu dee gerte caaf ak mburu ngay lekk bu dee ndox ngay naan boo paree nga dem toog buntu kër Ousmane Sonko nga sàmm ko comme ni góor yàlla yi daan sàmmee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu daan xiif bay takk xeer seen biir yi billahi ñun ñoo bon billahi sénégalais yéen ay défaillant ñun naka la ñuy toogee ñuy seetaan histoire di ñu raw ñun naka la ñuy toogee di seetaan naka la ñuy mën a expliquer lii noonu yi ñii naan waaw bu dee woon ma takk soxnaam bu dee woon ma def ko nii ñu ñuy manquer respect et on est là à écouter on écoute on rigole le président Ousmane Sonko dafa rëcc assassinat tente d'assassinat la il a été kidnappé hier dafa rëcc assassinat dama leen koy wax nag il a échappé une tentative d'assassinat parce que mënoon nañ ko assassiner pur et simple ñi doon toj verre yi noonu ay tubaab a ngi ci mënoon nañ koo dóor bal mënoon nañ koo jam euh, euh, pousse poison mu dee tentative d'assassinat il a refusé de sortir de sa voiture parce qu'il comptait sur la population sénégalaise. Il pensait que la population sénégalaise sera là et sera debout et fera face à ces policiers. ngeen daw ñëpp daw ñii jaar nii ñii jaar nii yéen ngeen yaakaar ne population bu debout déggu leen Thomas Sankara une population debout effraie même les bombes atomiques yëgu leen déggu leen loolu population bu jóg benn nit da koo mën a arrêté ba ay policiers dañ ko mën a arrêté. yéen ay tappet ngeen ay tappet ngeen man xale sénégalais ay tappet ngeen bàyyi leen tiktok bii ñàkk ngeen fulla ñàkk fayda ñun bu ñu neexoon ñaata yoon laa leen koy wax bu ñu neexoon du ñu xeex man xeexaluma Sénégal pour dem toogi Sénégal xaar ay privilège ñu bari ci yéen dañ may woo chaque jour naka sa xarit Ousmane Sonko naka sa rak man Sonko yor naa numéro am depuis quatre depuis deux mille dix huit boo ko laajee woowuma ko lu mat juróom yoon parce que je n'ai pas besoin de le parler su ma ko jotee c'est pour ñaanal ko ci julli walla xool jàmmu yaramam c'est tout bu ma gisee ne il est fragile on n'a pas besoin de se parler ñun soxlawuñu loolu suñu wax du Sonko lañu ñu soxla déedéet soxlawuma Sonko ñun li ñu soxla mooy Sénégal développé te Sonko moo ñu ci mën a dimbali. naka la ñu mën a toogee ci état ñuy seetaan ay bandi ay nit yoo xam ne ñemew loo leen dénk sa xaalis nga leen di dénk nit ki nga gën a bëgg ci àdduna bi. Macky Sall kenn ci yéen ñemewu ko denk jabaram ñemewu koo dénk doomam ñemewu koo dénk xar bi nekk seen kër naka ngeen koy bàyyee ak Ousmane Sonko on a abandonné le président Ousmane Sonko hier. on l'a abandonné quand il a vraiment quand il a vraiment eu besoin de nous ñu abandonné ko man bu ma doon moom démb j'allais arrêter la politique ma xam ne sénégalais jarte xeexal man su ma doon Ousmane Sonko démb démb laay raxasu ci senegal lay bàyyi politique ma wut asile génn réew mi génn ak sama njaboot dem comme ni ñëpp di def Sonko buñ ko seetaanee Ils vont l'assassiner. Sénégalais warkat ngeen ay warkat ngeen doo leen ay góor doo ay góoru yàlla man xale sénégalais xeeb naa leen demb je n'ai plus confiance en vou je n'ai plus confiance en vous man gëmatuma man gëmatuma leen Billahi, wallahi, tallahi, I don't believe in you anymore. naka ngay toogee sa yaakaar nit ki nga gëm nga ne kii la ñuy xeexal ñun kii la ñu bëgg mu jiite ñu kii la ñu bëgg mu changer ñu suñu réew ngeen toog seen biir kër yi bàyyi ñu naroon ko Patrick Lumumba démb Sonko il allait être Patrick Lumumba hier image Sonko bi ma xool ak image Patrick Lumumba biñ ko yeew dugal ko ci oto dem yóbbu ko rey ko yëpp benn la ngeen defe ne bu ñu reyoon Sonko qu'est-ce qui va se passer rien sénégalais yi ma gis dara du xew Maître Ciré Clédor Ly a été auprès de son client maître Ciré Clédor li a été près de son client sénégalais yéen ñëpp ngeen daw bàyyi ko. il n'a pas fui yéen ngeen yaakaar ne yéen a gën a dàq daw Sonko wala yéen a ko gën a mën a daw il est il a une très bonne condition physique man na daw mais dawul. dawul de dafa taxaw mais ki taxaw moo am ndam moom dafa taxaw jàkkaarloo ak ñoom mu wax leen est-ce que gis ngeen mu dee donc yéen lan ngeen di daw vous courez quoi. des grenades lacrymogènes grenades lacry mais mettez vos masques des grenades lacrymogènes ñëpp daw. abandonné ki nga xam ne yéen ngeen ne moom ngeen gëm Sonko yaay suñu baay Sonko yow la ñu gëm Sonko yow la ñu bëgg Sonko Sonko mais après c'est tout loolu mooy bëgg <laughs> vous ne comprenez pas l'amour je vous donne un petit une petite anecdote de l'amour man de je suis à 21 ans de mariage j'ai tout subi dans ma vie méttit bu ne teg naa ko doomu jàmbur bi méttit bu ne teg na ma ko moom and we still together ñi xam-xam nañu li may wax boo leen waree lekkandoo puub sax da ngeen koy lekkandoo xam ngeen luy mbëggeel mbëggeel sacrifice la àndal mbëggeel dafa ànd ak sacrifice du ay yuuxu kese loolu naxee mbaay la tudd li ngeen di def naxee mbaay la tudd du mbëggeel naxee mbaay ak tappale la tudd li ngeen di def c'est du tappale et du naxee mbaay gëmu dara gëmu leen naka ngeen di toogee seetaan ton espoir à Ousmane Sonko fecc buñ fi tegoon su démb bu doon waali sekk mooy tëgg tous les sénégalais jeunes sénégalais nga fa di yëngal seen taat tat góora mu yëngal taatam. c'est ce montre que vous n'êtes bu dee góor ngeen comporté wu leen comme góor naka ngay toogee nga seetaan le président Ousmane Sonko <clears throat> Uganda dem leen ngeen xool Uganda Idi Amin moo fa nekkoon bi mu fa jógee beneen dictateur beneen dictateur moo ñëwaat xam nga ñun ñu ngi wax Macky Sall ak troisième mandat Macky Sall bu dee lii ngeen yaakaar pour arrêter sa troisième candidature allez vous coucher bu dee lii lañu yaakaar pour arrêter la troisième candidature de Macky Sall bu dee lii ngeen yaakaar bu dee lii rek ngeen am billahi wallahi tallaay dem leen toog moi je suis déçu je dis je suis déçu comme jamais je suis déçu comme jamais déçu déçu comme jamais bi ma juddoo ba léegi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

ngay toog di dégg bis bu ne ñu lay won ay vidéo chaque jour regardez le président Ousmane Sonko. mu di dem siège à pied parce que son convoi était bloqué par la police qui a encore bloqué le chemin. جهنم دائرة فراغ Quel est le problème, mon commissaire ah, non, non, non, je ne voudrais pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. si, sauf si je, je suis en état d'arrestation. Voilà.

salfaañe benn benn yoon wala jalgati dara ñu ñëw di la fekk sa biir oto di toj sa oto di la génne par force sénégalais yi ne cel ngeen mel ni xamu leen lu géej gi riir sénégalais yi les mêmes fils du Sénégal kenn génnul kenn waxul ngeen ne cel vous êtes des défaillants loolu mooy défaillant ñun amuñu pour xeex man ku mel ni man amuma pour xeex li ma leen di wax toujours li ma leen waxoon démb moom laa leen di waxaat tey sama njaboot yëpp a ngi fii samay doom yëpp Amérique lañ juddoo man maa ngi fii sama soxnaa ngi fii am nañ fi suñu kër am fi suñu teraanga nekk ci jàmm am suñu liggéey on est en paix awma pour wax ak yen je naa rien à foutre au Sénégal man naa toog fi ma nekk nii lekk santa mën naa retraité suba mais nous on se bat pour vous votre futur et le futur de nos petits enfants